jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp suñu programme ci site bii di Senevision ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte kontaante bu baax a baax di leen siyaar di leen ñaanal jàmm ak salaam waaye nuyoo bopp siyaar bi njiital Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit waaye noonu lañ koy ñaanal Serigne Cheikh Fall jëmb xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal gudd fan lool ba ànd ak wér-gu yaram ñoo ngi fii nag foo xamante si nii yàgg nañ di bëgg di fi ñëw ndax jëmm ju tedd ji ngeen jàkkaar lool ñu fekk si ko fi muy Serigne Cheikh Fall Mbawar moom Serigne Aliou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñu koy ñaanal bu baax yàgg ko fa fekk tam mu ànd ak wér ak tal lépp lu muy liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall rek mu daje ceeg ngërëmul sëñ bi sang bi ginaaw bu la jaajeufale ñu ngi lay nuyu bax ci jeune bi di la bayyi nga nuyu ñi nga xamni ñi ngi bayyi xel jotaay sadu lisaani naw dina ni sabira na ni su bra sans to lay ro ko to may ro ta ci jor ñu di ray an min fi ni ya khair rabbi khairum rabbi ta ya khalbi ba ta bi jay sallu sallu alam ta mu kullu sun warahmatullahi wabarakatuh. ñu ngi leen nuyu di gërëm nuyu mbokk ak sunuy kilifa ak taalibe yi ak mbokk yi xarit yi rajo yi di leen sant gërëm ci seen i taxawaay jërëjëf. gis nañ ni tey la ñaareelu fan ci weeru koor gi. Mm-hmm. ñu daan baaxoo di gis uh, loo xamante si nii ren. Mm-hmm. Eh, gis nañ mu amuk soppiku. Mm-hmm. Uh, lan mooy sabab bi. sabab bi de noonu ci sunu gëdd moom ndigal ko sabab rek. dañ ko daan togg di ko yët sëñ bi bi ren mu wax ne nañ ko toggee nii te defee ko nii. su ma defee ko noonu xam nga am na fi koor yee dama leen daa wax naan buñ ko toogoon ba noppi sëñ bi ne na ngeen ko sotti ci kàmbayaat nu sotti ko ci inama nota mi kom léew ci laay laa nuri di mu kom jasaan wala si koor de ci sunu wet moo ci loolu waaw muy ndigal loo xam soppi ni ngeen ko daan defee waaw sëñ bi leneen daa bëgg ñu defale ko nii ren ji ndax ne gannaaw jamono ji tax na mu bari yum soppi ndoog yéen bëgg na nu defale ko noonu ndax liggéeyu Seex moom bëggul mu dakk bëgg na di ko def nañ ko doon defee nañ wàññi mbooloo mi nag ba ñu yem di ñëw di ko indi ndax ne terewul liggéey bi. ni ñu koy defee fii nan la. mooy ni nga gis. comme ni nga gisan léegi yaa ngi si bët ak soolaam ñu ñëw. Hmm. a ah, man ni nga gis mooy ni ñu koy defee. <laughs> muy muy lu am solo dafa mel ni kon itam dama am digel li yóbbu gi daa soppi waaye ñi daan ñëw di indi danoo soppi ñoom ñu daan ñëwee ñi daan ñëw indi da am na ci ñun lii lañu bu jëkk noonu la daan def ñii dañuy indi ay jëmm ñuy indi luñ leneen lu muy àndal hmm. boo tey nag nit ñaa ngi def loolu maanaam nag ñu ci bari nag nañ daa àndandoo di ñëw lañ soppi hmm. dañuy yebal kenn mu indi ko wala ñu yónnee ko ci yónneekaay yi ñuy yónnee hmm. waaw muy muy lu am solo ndax fi jamono toll nii nga xam te ñu bëree bëri tiit nañ uh-huh. uh, wàllu kër docteur wax ñoom ñii leen war a jëfe uh, boo amee benn xalaat boo ci dolli ñi nga xam ay taalibe lan lan lay doon foofu tiitaange da julli di li mu war a tiit mooy diggam ak yàlla mooy yàlla gu mooy yàlla wala ñaaw jëf ak ñaaw jikko jëm def ba yàlla teg comme natt waaye leneen loo fi war a tiit ab jaam la ne yow ah, ñaari jaam yàlla nag benn waru cee tiit morom wacc yàlla mi leen bindal mm-hmm. yàlla daal la ñuy ragal jàngoro des koy moytu mm-hmm. Euh, kër docteur ñoom maanaam ndigal li mu joxe ni kuy moytu noonu nga war a baaxoo. loolu moom laaj ngeen leen ko ba ñu wax ko yéen ba noppi man ci wetu wet googu yéen ko yoru seen bopp. Hmm. Ah, baatu corona nii ngeen ko dégg rek ci nopp la dugg rek fii tur la ko fi indaale ma xam nii la sa bàyyi tuddee woon ko tur woo ni ko ñoom dal ñoo ko tuddee noonu ma dégg ko ci noonu weesu noonu laa ci yem hmm. te ni laa bëgg bëgg mu weesu ko itam hmm. wàllum masque yi ni wax naan laa dimbali pour nga moytu ci yooyu ndimbal yàlla day aju ko ci leer nu moom yàlla moom waxtu wu ne ku mu a dimbali waaw. ci côté raxasu beeg sorente gi. raxasu fi ne daan ko def xanaa ba nga daataa lekk di yooyu yëpp lu ñu santaane woon bu yàgg la. sorente gi maanaam comme nag comme. loolu fi ne yaa ngi fi ne xaw ma biig sore nga ak sa jabaram déedéet xam naa am na ñooy sore am na ñooy soriwul. Hmm. Ah, <laughs> nga xam ñi ngi topp seen émission xam naa allah ki nga xamante moom la euh, allah. sang bi ginnaaw soppe yi nga xam te ñi ngi bëggee sëñ euh, euh, sëñ Cheikh Fall Mbawar ci côté wolof bi. Hmm. ndax mi ngi bàyyi xel maanaam ëllëg mu bind loo xam te ni ñu deen ci mën a jàng ndax fi fi jamono toll. ñu ngi koy dégg de ñoo ñu koy dégg na ko ci am ci am yi tey ko. ci dégg te yi ngeen yor de mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci kale yi ne ci bari yu mel ne léegi nag ña am na ci ñaam ñu am xalaatu di ko bind ñoo ñaa nga koy bind même université yeeg ñu tubaab bi am na ci ñu ko bind di denc waa xam nga nag ñëpp bokkuñu bind ñenn ñi dañuy bind ñenn ñi déglu ci kale yi ñi ci des lenn da ngay dégg mu romb la xam nga njàng daa tolluwut dama leen di jàngkat am na ci ko loo ko sàmm xam ko am ko da nga koy sax ba noppi duma ko mu soog koo xam am kook loo ko duma duma du ko xam am koo xam ne araf yi xamee na ko ci biir bi bi te génn gut muy lu am solo ñi nga xam te maam dañoo bëgg gëstu wolof Euh, bu ñu bëggoon a ñëw nga leen teg ci yoon ngir la leen di wax. wolof laa ne ñoom de xanaa dañuy bokk di wax ci wolof rek lu ci waay dégg ci morom mi xam ko. sëñ Cheikh ndax daa am professeur bu koy xam professeur bi wal xabiru maa doonoo tafsiroo tadbir ba xam nga bi muy def meewum wolof di ma ko nàmpuloo santu ma ko moo ko defoon def loo na ñooy pël defu ñooy tubaab defu ñooy leneen ku ci ne nag te al ixtilaafe alternative kum yooyu suñu borom wax dana ci samay kiimaan laa jublu yéen a nurooy nopp nuróo bopp nuróoy taxawaay te ma fexe ba déggante leen nit mën naa saaga morom ma nday muy ree mu ne nag loolu yi da ngeen dul xam kiimaan waaye ci samay kiimaan ay modèle ngeen yu bokk ba noppi te déggante wu leen mm. ah, te oto yi sax xam nga ñu bokkut couleur du tee ñu tolloo vitesse fii ne boo amoon euh, marque bokk hmm. bokk yëpp mën naa am couleur bu weex wala bu xonq wala bu bula waaye du tee ñoo bokk luñ doon hmm. nit da ngay doon lii ba noppi kee du la dégg doo ko dégg waaye teewul nag appareil yàlla boole ko ndax fi ne lu ngeen déggante ñàkk a déggante déggante wolof hmm. du tee mën ngeen a composé ba am doom joo xam ne da métis lay doon seen diggante kon xam nga organes bokk làmmiñ yi bokkut waaye organes yi ci des ko bokk sëñ bi nu mu déggee couvre-feu couvre luy loolu mooy bu huiteel jotee ñu naan ku génn sa kër ñu jàpp la. reer tëdd di lañ ne mooy wala ji reer doxi su mag ñu njëkk ñi ko bu yàgg quarantaine na loolu xamaguma ko mooy maanaam bu ñu waxee ni am na jàngoro boo jaxasee moom ñu téye la fukki fan ak ñeent ah, loolu ñu téye kooka fukki fan ak ñeent waaw ah, ñu téye kooka fukki fan ak ñeent <laughs> ñu téye kooka fukki fan ak ñeent ah. sëñ bi daal daa wa baaxi subhanahu sul kana fi nu wa baaxi wa nahnu kana fi mannihi min kulli sëriñ waasan sanni mustam si génn bil xiyaasi ahmada xayra ana muntaan moom tada man xaalaa fi samin lu baaxi di nee la koy may mu mel ne ñu ngi dégg ci taalibe yi ci ya fi daan xew bu yàgg bu masaa xewet sëñ mag bi ci boppam moom da caa bind am na li mun sili wadaay mun silin si wadaay moom daa sant yàlla mi wàcce loolu waaye daa wax ne gannaaw wàcce na lu koy saafaraatum te man amaral ibaadu bi duwaay leet foo bennil balay maa sant jaam yi ñiy ñaan ma fegal leen ko balaay loo man di fajoot fege boole ci ñaan mi mi yàlla santaane mu di la fegal taalibe yi ñu ngi ci bitti di sikkar noo yóbbu ji woon xewal yi ba ñëw mhm. ndax bu sëñ bi day dem foofu mu noonu moom bu xool ba xam ni mu ko bëggee noonu ko defee nit wala nu ah, man de sant leen ko ngi lay gis te léeg-léeg mu gis la ci nu mu bëgg te taxul mu wàcc wax ceeg yow dara am lim la sant lépp yaa ngi koy def ni mu ko bëgg am ko ndax euh, sama naataango aaru si de mu ne gan ñaan ngay baaxee taalibe bi ngir ci hmm, moom nun musal na rek hmm. Hmm. ah am genn kilifa. Mhm. am genn kilifa ne woon na ma boo amaatee jotaay sëriñ bi. Mhm. nag ma ko laajal lan mooy am murit. noonu la ma ko waxee maanaam lan mooy am murit. genn kilifa. kilifa googu da nga koy laaj lu mu doon boo ko gisatee ba nag <laughs> bu doonee lu dul murit bu ñëwee maa <laughs> daal nga baax nga nga baaxee nga baaxee ko taalibe yi daal. am murit qualité murit nan la war a. xam nga yoon wi moom ba mu sosoo ba nag ni ku ci xamatul murit ba nag jërëtu ko wax moom. <laughs> yàgg na te ci murit la doon dox ba nag dëgg-dëgg yi Baye Fall bu ñu ko bëggoon a xam. mooy Cheikh Ibra Fall. Mm-hmm. mooy Cheikh Ibra Fall. waaw ah. ndax mën nga ñëw kiyal ci Cheikh Ibra barkeelu ci Ibra. Ah, ah, li ngeen ci xamoon ba tax ngeen ñëw fii xam ne ci kër Cheikh Ibra ngeen jëm de mooy li ngeen li ma leen cee xamal mënuma lu ñuy xam lu ngeen ci xamul woon dégg ndigal ak bàyyi tere da la doon def. Mm-hmm. lu Bamba wax mu daal di naaw. Mm-hmm. foore ji sant saaw naa ko da ngay dellu gannaaw jàngil murid du pexe. xam nga jàngil murid duy pexe la ko wax. Mhm. te fekk na moom ba muy jóge fee dane mu daal dem tay ba Dakar fekk gis mu daal dem tay ba Dakar ngi dégg Bamba di fa xaar. Mhm. fekk na sëñ ba Dakar ci njàng lay xamal pexe. Mhm. ki naa ko jangil murid du pexe fek na njàng la xeeb fee ba ñëw fi yër di wax la fa fekkante yëg di wax lay wut deug deug Baye Fall moy Seere Fall ñi nga xam nak dañuy wax ni ñun keur maam Cheikh lañu ñuy te leg leg bo leen gisee sax da nga lay gis no xam te da nga nani kom ki du du xawa ki lolu mom lo gay lolu mom keur gu ne am na fa guro bo dem sank na nga ci kay kay yéey fexe ba am fu lay seet bu baax mu seet fi na am na ci chrétien ya am ci benen tarikh bu mën di doon Baye Fall pire daal dama leen mom fo dem danañ fa jaay yére soldat rek Eh, man nga ko fekk marché Thiaré waaye numéro matricule du ca nekk carte ba muy fayoo du ca nekk allocation familiale rek doomi ko ko jënd du ko ca fay. Hmm. te oto nag bu doon bu doon bàyyi te ak Baye Fall moom bu oto du fees du fees bañ jël place chauffeur ba. te chauffeur Baye Baye Fall te table table de bord ba lañ ca bind boolewuñ ko ko kenn. Hmm. te fii nag bu ñëwee ci oto ana sa permis lañ la waxee duñ laaj ña ca def seen i loolu ñu naan mooy li gars yi naxe gars yi ci naan jàkka jaa ngi nii ku mën na nodd fi ne jàkka ji ku mën di nodd benn benn ilimaane jiite fi ne téeméeri safoor bu ñu jëleen kaar autob daayira di siyaare ji kenn cay dawal booy ba na ku ne permis na ci sa poos waaye kenn ay dawal couvre-feu daa mel ni yenn ci presse bi di leen topp naan ñi ngi tollul béréb sàngam ñi ngi tollul béréb sàngam loolu xam naa ko waral bi dama ko ne lii ngeen di def bu ngeen doon bàyyi ba defi ko ba ñëw soog ko soog cee nettali moo doon tane waye am iya, iya kan oh, bu bu joge yegal raboo ne ko mangi ñew ci yow bu am rabo amé bop du ko fekk yene waxal seen bop ne no ngi jóg départ nan béréb sangam no ngi jëm béréb sangam ña fa ne te yor radio ñëpp du ngeen fa fekk kenn te ñu dëng ñëpp dañuy wut radio di leen déglu bu ngeen jalle ñu soog bu ngeen jalle ba tagu to ne no ngi teeri léeg-léeg kenn di téléphoné morom mu ne ko mangi dugg suñ kër ak wañu ko na léegi bu ko defee nak ñay dem seen tëral ngeen nit ñi ba ñëpp tëdd ñay dem nak seen gannaaw lañuy top def leen liñ leen def yéen kay da ngeen a waat def li ngeen di def ba noppi ñëw so ko netti bu defee nga mën a yor kooku ba jàpp ko. lu yor di jàpp de yëglu ko fa bàyyi ma du fekk dama ne na ab rob la muy sol ba jàpp rob bokkut ak duy sërëm la koy lekkee di sërëm xam nga da nga gis dañuy rab yi rabu ngeer ko di raam ak dina butoo ko def bu loolu nag bokkut ak li ngay jàppe rob bi waaw mooy la ngay jàppe waaye bu bu ko toggloo ba toog di lekk nag loolaay di sërëm fi ne jën bu buy lekk yi mepp dañ ko yafal waaye buñ ko fiiri dina xam ne yafaluñ ko mi ngi mel na xari tabaski yi rek moo ci mu ci defeen da ngaa fas ak moom wëlëri hmm. buñ ba ca suba sa ku la ko laaj hmm. na ñu ngi la ñaanal nga yàgg fi lool am na moom maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi lay jàppale ci liggéey Cheikh Fall <laughs> jërëjëf am na mbégte lool ah, da ngeen a baax da a baax doonoy saadix ba dikba ko kokoy borom ba war donoy sadiq ba Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Cheikh Ibrahima Fall ku sopp da babil munit lampam ba te mooy donoy Cheikh ci batin lampa waxo ni moy ki sa batin te mooy donoy Seydina Aliyu jàmbaarul islaam je te mooy wàlliyu jullit la xante murit kuul woon kuul woon te gëm aboori jàlla ku teela man boppam ci nekku baayam badara te jënde kokta lu be jaay njureelam